waaw mais combat bi yaakaar naa ne man nu ma ko gisee man sama sama bopp laay waxal quoi man defoon naa ne combat bi ñoom ñaar suñ jàppante jël bi dina gaaw ndax Quench ci lu mu jugee defoon naa ne day ñëw parce que moom dana woon ne combat bi waru ko woon a jël ndax làmb boolewul boolewul leen am problème adversaire moo tax mu jël combat bi mais man pour man day ñëw rek jàpp double moteur daan ko mais damaa gis ne dafa ñëw jox cër double moteur ndax. double moteur tamit dafa jël luur te combat bi yombul te mais la woon nag lu ma gis tey combat la woon. jërëjëf jërëjëf. sang bi maa ngi lay nuyu. waa ñu ngi lay fay. tey noo gisee làmb ji combat bi double moteur ak Quench est-ce que waroon na ñoo bëri li ñaar. non mais pratiquement xam nga làmb ji lu bari feeñ na ci mooy wane ne ni Quench moom xale la am na doole am na supporter am na ngemb mais bëri bi des na. tey ñoom Moussa ñi ko yor war nañu gën a liggéey ci moom ndax xale lu mu jàng mën ko war nañ ko gën a jàngal bëre war nañ ko gën a jàngal bëre ndax def na ko contre Diène def na ko contre euh, double moteur te tey ñëpp gis nañ ni mooy favori ci biir combat bi ñëpp gis nañ ni ah dañuy yaakaar ni moo jekku ci ñaan donc waroon na gën a mën a exploiter su doon jàngal nañ ko lu bari Moussa daal ñi ngi koy sas amateurs yi ñu gën a jàngal Quench mu gën a mën a bëre ndax xale lu mu jàng mën ko. double moteur nag li mu bëree naxam baax na moom tamit daa ñëw téye boppam jël na fa ay coups sax mais teewul maîtriser na lépp ba làmb ji jeexee si avet yi. waaw xam nga double moom dafa nekk ci dëkk boo xam ni euh, dëkku football la dëkk bi ngi jiitu ci dakaar euh, muy muy muy Ndakaaru léegi nag supporter topp na ko coowu làmb topp na ko bu doon làmb dafa am yoon rek du bëree Quench ci jamono bi ñu toll donc kon moom def ay exploit moo tax mu bëre kii ñu jëloon soixante-dix pour cent jox euh, euh, Quench tey yàlla def moom def na résistance bëre na bëre xale mais quand gere na ko ñoo met am na ay lakkin yoo xam ne xam naa ne suñ fi jógee dinañ ci gën a liggéey ndax mbëru gox la ndax su dëkkee bawal wëlbatiku dëkk biir rëbës rëbës ku ko xam-xam leen ci ci jàmbaar xam leen ci solidarité xam leen ci mën a ànd ak seen mbër donc suñu amee xal xale bu mel nii su génnee rëbës yëpp topp ko su génnee war na def lu ëpp lii. ndax amateurs yi kontaan nañ ci combat bi. waa amateurs yi mën nañu bañ a kontaan mais quand xaaroon nañ lu ëpp lii mais am mais diggante Quench ak Double Moteur Quench defar na ko la fa passé mook Diène Kairé même loolu la répété waat si dix xaaroon nañ ko ci lii moom Double Moteur tamit li mu bëre est-ce que xaaroon nañ ko ci hmm. waaw combat bi moom vraiment amateurs yi am nañ déception parce que tamit euh, combat la boo xam ne ñoom ñaare xale lañu ku ci nekk da nga ci waroon wane sa bopp Double Moteur ñëpp gis nañ fi mu jóge Quench aussi gis nañ xaar mooy ñu ñëw xeex bëre peut-être nag lamb tamit il fallait que xam ni victoire moo am match nul ak li nga xamante ni mooy défaite tey yàlla dogal na match nul la gënaluñu mais tamit dañuy xam ni c'est la loi du sport ay xale lañu nañu liggéeyaat rek te xam ni li ci kanam rawul bët et puis tamit di féliciter suñu frère muy Thiam production parce que tamit gis nañ tey stade bi ni mu ko def vraiment amateurs yëpp wuy ci supporters yi wuy ci ñuy lancer appel aussi tamit autorités yi ko parce que jeune la bu jël ay millions investir ko ci lamb gis nga lamb ji tey ni mu réussir te sponsor yi nga xam ñu ngi koy jox promoteurs yi mag yi nañ ciy sédd yeneen promoteurs yi ndaw yi parce que promoteur promoteur rek la ñoo ñoom ñëpp benn licence bi ñuy dagg ñooy ndaw yi bi tey ko xool Quench li muy indi bi xool double moteur li mu nga xam ne ñii ay mbër yu ndaw nañu jàppale promoteur yu ndaw yëpp vraiment di wax ni tamit kontaan nañ trop tey ci jeune yi kii ma taxawal mooy Elimane Diop kii mooy Abdou a a yi dana dana yàq lu bëri ci ci ci préparation yi. mais comme mais am na kon. non baax na dañuy continuer rek liggéey. Mm-hmm. Euh, xam ne laa bëgg ndam la noo ko amee rek ndam. Mm-hmm. ndax nag ak champion yi nag. ñàkkee na ñii décision arbitrale ndam la. sa ñaari doom la loo leen di wax. waa ñu defarwaat rek ñoom ndax xam nga duubu mm-hmm. waa këram niñ ko indi ñoom ñoo ñoo. ba tey ba tey yooyu yëpp daal. yooyu yëpp daal. oui maa ngi lay delloo ziar. di la jox sa waa ci waay xam di ñaan Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg quoi. waaw di sant bu baax xam nga. di ñaanal Quench na ko yàlla ndama ah. ak gaaroo waaw. tey loo koy conseillé Quench. bu ñëwee ni mu non bu ñëwee ni mu daan ñëwee rek incha allah day am ndam waaw bu neexee yàlla ni mu daan ñëwee bu ko ñëwee rek day am ndam. ni mu daan ñëwee. ñëw dal tekk bëre jàpp daan waaw loolu daan ñëwee. am na euh, doole d'accord nga ci loolu. nanguwuma loolu la Double mënul doole Quench. billaahi mënu ko ëpp doole ah waaw. ñu ne bi ñoom ñaar cinquante cinquante la. Quench moo dàq bëre moo ëpp doole. xeex bi ñoom ñaar cinquante cinquante la. Quench moo dàq bëre moo ëpp doole waaw. yow fan ci combat yi. combat yi ñu ngi déglu rek di xaar waaw ñu ngi déglu rek di xaar waaw. jaajëf jaajëf waay kontaan naa bu baax. <laughs> di leen ñëpp tey di nga gis làmb ju neex ndax dañuy Quench bërekat la te double moteur da koo ñeme torop mais tey ji su ma doon mm, analyser ak di leen digal dama naan double moteur na def nànk tuuti. ndax man tey jii mën naa ne tey Quench laa jox favori 100 pour cent ndax li mu waneex si xeetu bëre ñun ñuy ay bërekat man bëre Quench moo ma gën a doy ko bëre bu double moteur waaw te moom laa jox favori tey. xeex bi tamit sax double moteur sax soo xoolee xeexam bënnul noonu bënnul noonu ba tey tey déggoo na la su doon 100 pour cent 90 pour cent yëpp Quench laa koy jox. waaw double moteur nag am na 10 pour cent mais làmb nag nit di nga ko mën sax mu ñëw daan la mais tey jii mooy li ma la wax rek làmb neexatul a pronostic léegi ndax da ngay mën nit sax mu daan la mais tey daal favori moom Quench mooy favori bi ñoo tolloo doole mais ba tey seen i bind bokkul ndax bind double daa bindoo ci kaw waaw. ku ci nekk lu war a moom gisuma lu mu war a mën a moytu làmb la daal làmb la. mais comme côté favori ak pronostic laa waxee mais làmb la lu ne mën na see am nag. Mhm. lu ne mën na see am ñoom ñaar ku si daan fan la la mën a yóbbu ci ci carrière sa carrière. non xam nga Quench da tey ji daa taada si làmb am na ñu bëri ñoo xam ne moo leen jiitu si làmb te dañ koo raw làmb jii nag dafa war a wan a confirmer pour wan ni moom fii dafay war a jóge dem feneen double moteur it su daanee tamit da koy gën a yokkalaat ay escalier rek waaw jaajëf non ndam ndam la rek. loolu lañ bëri surtout deuxième mi-temps ñoo ko téyeloon boppam da ko bul jël benn risque parce que gis muy forcé ba bëgg a daan boppam du ko def du yoon.